gi daara yi baayu daara yi yaayu daara yi tabaarakallahu responsable yi njaboot gi tabaarakallahu yenn yàlla defal leen jàmm yenn yàlla yokk sutura mu mel ni nag daara ju mag ji moom lu fi nit di wax amul ndax moom tabaarakallahu mag yéen a ci yem li ca am solo rek moo di di tiire leçon yi waaw ndax Seyid Cheikh li ñu war a jariñ léegi waxoon na ko depuis ñaar fukki at waaw moo tax nag juum juum loo fi ne waaye lu leerul amul li ci am solo rek nag moo di di delloo si kàddu yi te am na erreur bu ñu sañul ñun génération bi di ko def te mooy taataan lu mel nii ba noppi yemateeg ñépp kooku du jaatu waaw moo tax rek nag nañu dellu defaat jom jom dëgg def xaway parce que waxon na len ci Ndar ni am na kilifa gu nga xamni ciono ba mu daj lok mom nan ko mass rek du ko régler da ngay am taxaway bu tax safan bu jann lol fàtte safan ba ndax sa taxaway kana ñun bobu rek mo wara nek suñu yitte fi mu nek li ci des nag mooy li mu leen wax ci début bi alladina laa yantiquna illa bi sumt ak alladina laa yantiquna illa bi shagab ak alladina laa yantiquna illa bil xaq ki xam lépp te la mu xam bu ko waxee àdduna tukki kooku ci noppi rek lay waxee nit ñi nag dañuy jaawale assomt ak al insaat wa ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu bokkul ak assomt ñuy wax lu la war jariñ nga ni pat pour déglu bokkul ak assomt waaw assomt mooy am argument yëpp xam lu nit ñi xamul te bu sa waxtu wax jotul doo wax waaw mooy li mu tontu woon ci gàmmu gi ci ruuxu taqdir ni cër la boo waxee ba noppi nga noppi bàyyi ñi ci des wax ba sa wax jotaat waaw ba tax na tabaarakallahu somt bi foofu rekk la dellu boobu nag moom moo ko moom الذين لا ينطقون الا بالشغب ما اللي مولين واخ نيغا خامني كي سوو لا نيو دوند اه, آه، ملي اسماعيل لو واخ نكو كوي ودو لامين آه. كوي ودو لامين بونو بيرافلي واخ فوك نيو سوو من يتهد بما الذين لا ينطقون الا بالحق waaw mooy ki sañul noppi waaye du wax lu dul dëgg dëgg nag du kaddu loolu nangeen ci bàyyi xel dëgg du kàddu parce que ñi daanu ñëpp kaddoo leen nax dëgg fi nga koy nangoo mooy balaa boroom a wax li la koy nanguloo foofu mooy jiitu si looloo tax am na cercle bu nga xam ni ku ca dul évoluer kàddu dëgg ngay génne waaye gën génne woo dëgg maanaam kalimatu xaqin urida biha batil du am na am na koo xam ni bu waxee ba noppi rek nga daanu way boo jeexee ba ca biir nag yegg ni am na lu ñëwul waaw mu mel ni nag wa innahu lal xaqu min rabbik ak arsala rasulahu bilhuda wa diini lxaq ak wala yatuunaka bi mathalin illa jinaaka bilxaq ñetti xaq yooyu cercle boobu ku ci évoluer la ngay wax nit ñi di ko nangu feneen lay jóge euh, bi ci des nag moo di baat bi mu tudd ci nii mag ñépp seen njaboota leen mas yitteel baatu njaboot nag dañu koy labat ni ngay gisi jigéen bu la yitteel nga bëgg a jot ci moom dox ko wax ko ba jot ca noonu lañuy ñuy defe wàllug njaboot ci kilifa ba jot ca yaa xam nag ndax lu yéeme la léeg nga sonn dox ci mbir wax ca ba ñu jox la ko ba noppi beneen jamono ñu laaj waa anamu ah faaf nañu baalante amul yaakaar naa li ma leen wax film bi jox na leen firnde yi na bari na ñu ngeen séenoon ci tant boobu ah waaye na ña yàlla suturaal dem nañu barsax fekki mag ñi yàlla suturaal leen waaye am na ñu ciy dund ba tey te dootu leen leen séen ci tànt yi dama xamul nag xataa jenn zawjan gayra بعد الزوج ولا كلي حرام بابدا كوكو نك نون من نيو كاتي تي نجابوت لا واخنا واخوما تي سخنا سي اوكي ادان رك آه. نك نجابوت فراتلا mu mel ni daan nañu leen wax baat moom ci Seyid Cheikh laa ko dégge woon mu ni Moustapha mu ni ma fa ñaar mooy tax kilifa neexook njaboot waaye benn bi nag kilifa gee ko moom beneen bi njaboot gi bee ko moom ma ni ko lan mu ni ma cofeel

mooy tax nag baat bi mu leen di wax foofu lay dugg te mooy kilifa bu fekkee ni bu soxlaa ku ne mu neexal la ne na neexalaate jigul nitu diine jigul nitu politik wax na dëgg ndax bu dee loo soxla rekk neexal nit ñi dana am luy ñëw nag nit ñi tàyyi motax nak fexé ba waxanté nit ñi li man nek daf lay noppal wax leen li nga gëm ñomit ñu wax la li ñu gëm and ba dana yomb waye gis nga lank na ko nangu ko fenen te moy sa jangoro boko neexalul mom du ngeen dem gis nga bobu ni muy yeme. booy ànd ak nit ñi bëgg leen neexal du sotti waaye jàngoro bi la yàlla teg nag mu di jaamu jaamur boo ko neexalu rek àdduna tukki moo tax xàmme yooyu nag dafay baax li yàlla nangu fii lànk ko fële ah, li la koy xamal mooy li mu tudd ni li sonal nit ñi yépp mooy ñàkk a xàmme liy problème yi ak liy détails yi ah. nit ñi dañuy dem di sonn ci ay détail sonn ci ay détail defe ne li ñuy def yëpp mooy problème yi fekk problème sax xandu fa parce que li li tax nit di sonn mooy moomale gi mu moomale boppam problème problème nit moomu ko dunda ko moom c'est comme ay doo daan yaay xam nag noo ciy jaare Mais ça autre rës mais problème ay do dan le ci bir dundu. les obstacles sont là pour être franchis yaay seet à ta manière bi bi ci ëppaat doole li nit ñu bari li len sonal moy jappé gi ñu jappé yalla mystère parce que yàlla li ko war def na ko te mooy wàcc na ba tollug nit ndax bu bëggoon nekk mystère kon nit du xam ci moom dara waaye bu ko nit gisul ci jëmm it mel na ni gis na ko ndax gis na ko ci ayat yi gis al ayat fi l afaq wa fi l anfus ku ne yàlla am na fu mu la feeñoon yaay seet nag maa ngi ko wax léegi ci ngoon ak ay bokk ma ni ku gisul yàlla it gis nga ndawam <laughs> lay ndeysaan te waxuma yonent yi nag <laughs> ku gisul it gis nga ndawam waaye waxuma yonent yi waaye léeg ndaw ñëw nuyu la waxin la nga ni ko noo tudd mu ne mën a xéewal foo jóge mu ni ca sa borom kooku buy dellu war naa yóbbaale lettre ndaw lu ñëw nuyu la nga ne ko noo tudd mu ni la xéewal foo jóge mu ni la ca sa borom war na buy dellu yóbbaale lettre te lettre ba bu ñu ko ubbee war nañ caa fekk baatu cant beneen yoon it beneen ndaw ñëw nuyu la nga ni ko noo tudd mu ni la nattu nga ni ko foo jóge mu ni la ci sa borom kooku buy dellu war naa yóbbaale lettre te lettre ba bu ko borom bi ubbee war na caa fekk baat bu tudd muñ waaw waaw billaay ndaw yooyu rekk nag ba fexe ba ndaw bu ne nga xam lettre ba nga ko war a jox mu yóbbu ko te muy dëgg ci yow rek yëpp baax mu mel ni nag tudd na ko ba ci ñaan ba ci ñaan bu jëkk bi bari na ku ñaan te xamoo sa soxla bu ñaareel biit bari na ku ñaan ta xamoo fooy jaar sa ñaan bu ñetteel biit am na lu ñaan du réglé te yii yëpp xàmmee ko dafay baax waaw dafa bari ku ñaan ta xamul soxlaam waxin la mu mel ni la mu fi firi woon ca ndar ci nitu yàlla ba ñaanoon boromam ci aajom yëf ya të ñëw mu ni dafay xaru ci lu tax yàlla nanguwul ñaam gi lu tax yàlla nanguwul ñaam gi ba bëgg a xaru tuuti malaaka ñëw ni ko dafa am juróom-ñaar fukki junne yi àdduna yu doon bëgg a moom lañu yàlla mobiliser woon ñu daw gaaw gaaw ba la moo basculer moo taxoon li mu la waroon yónnee tardé nee na ba bëgg a xaruwaat waaw <laughs> moo tax gis na di nga gis jàngkat yi sorewul surtout sawo jien yi ñii boroom sikkim yu rëy yi di tari aaye yu rëy yeeg sunna yi xamuñu dara parce que am na loo ko xam ne bu dul sa domaine rek mandu ca maanaam li ñu miin ñun bu ñuy giñ di giñ ci sunu sëriñ walla bu ñuy ñaan ñuy ñaane ci sunu turu sëriñ ñu naan xaraam rek loo xamul rek xamuloo ko gis nga décret boobu yàlla moo ko génne ñu yóbbu ko ca diiwaana saalihin ñu ñu signé ko te yàlla xam ni jamono ngi ñëw bu nga xam ne xolu nit ñi dootul sell sell gu muy nangooti seen ñaan te ku ñaan yàlla nangulu la yàlla ngay tuumaal ni dafa mënul te la ca aju dafa bare moo mag ñi jël responsabilité bi pour ñu ñaan ci seen tour bu amul nga sikki nit mo gëna a nga sikki yàlla loolu rekk la war ruuxi dikruhu وألطف منه فيهما نكتة الذكر يعني سعدي دفا فك نغتار درك من ذكرني لم يشهدني ومن شهدني لم يذكرني <laughs> لا إله إلا الله كين مسول جسلون نانا فك يانغ مي تود درك خمالني جسو غوما واي بيس بو ما جسي نك dootoo am dootoo am jotu tudd ma mukk waaw mooy la mu doon nettali ca gaañaak ba mu leen wanee maquette ya malaaka ya jommi woon ba faf rek sëgg naan huwa huwa huwa waaw dof complètement lay ndeysaan man dakarani lam yashhadni wa man shahidani lam yadkurni lay ndeysaan mooy baat bi ñu wax ba tey sànq rek ku nekk ci julli doo xaar julli <laughs> lay deysaan ku nekk ci julli doo xaar julli <laughs> ndax dégg ngeen wax bi walla déet boo demee ba sa dund yépp julli la dootoo xaar waxtu ok. Mm-hmm. lolu mo taxone cheikh amone contentie bi ak njaboot ba da yegatul won ci dundam waxtu wu dugul ci julli ah lolu lo am solo la waaw tabarakallah yàlla buñ ko bëggee jariño duñ ko def mystère donte limu bind nak amna ci ay mystère yoo xam ni tubaab yaa ngi ciy sonn nag di ci daj lu ne pour bëgg a génne mystère yooyu lu leen ci lu ko ci woon ni du du gaañ dana bàyyi ñu xam ko waaw ba ci baat bi ñu leen wax démb ci boobu ibliis doon weddi

mu ngi ci biir deret ji mais doo ko gis te bis bu waree topp yoonam ba fa mu war dugg mu dugg fa pour doom war sosu xam na ko te doo ko gis yàlla mi ko jaxaseeg deret noonu ba mu man lool it moom moo jaaraat foofu seytaane rek mu nekkaat beneen genre virusu boppam aljur jurthuma maa ngi ciy waxtaan ak góor gi keroog ni ko lay ba nga rawee gaañ yi du tey ba nga leen rawee du tey inna aljaraathima allati la tadharu lil ayn fa hiya diafu ma qad yustadharu te fan yële passé ma ciy suivre benn débat ca Maroc waaw ñuy indi affaire microbe waaw ba ñu ko découvrir depuis le 7e siècle waaye rek li leen jaaxal dañoo defoon ni rek ndekete euh, foofa la yem ndekete jamono bu nek ak lu ñu gën évoluer ak lu appareil yi gën sophistiqué ñu gën découvrir yu bees parce que ca bobu siècle yoyu yépp bactéries yi rek la ñu jot a gis di leen tudd non ba ñu fa jógee ñu commencé découvrir ak li les parasites waaw ah. ba ñu fa qu'il ci la ñu commencé découvrir li ñoo les virus ba ñu ci jógee ci la ñu commencé di découvrir li ñoo les champignons wax nañu ne nag des yeneen microbes nous ñu commencé découvrir ci jamono yi gagne gaañ borom ndax microbe yi climatiseur moy tax ñu gën baré waaw jamono bu nek ak lay génn pour wax la yalla yi mu yor ci yu nit xamul kenn xamul nu mu toll bu ko defee nak ah, la ca des moy budul mystère am na façon bu nit di jaaxle ci jëfandikoom mooy li mu leen tudd ni yàlla nga xeetu cynisme waaw léeg-léeg nga xool yàlla da ngay laaj ndax mooy yàlla miñ la doon wax ndax day mel ni ku soxar biit mi mbaax ñun fiiree guñu ko parce que pour ñun nit ku baax mooy ki lay defal li nga bëgg rekk du noonu kana baat bi tudd nañu ko ay yoon li mooy li kilifa gi daan wax ni fu yar jekk nga teg fa teraanga fu yar jekk nga teg fa teraanga dafay yàq dafa mel ni bada am na lum ci dégg waaw ah. ndax dama def benn sorti ci sama waxtaan yële passé am njaboot yu jaaxle fekk c'est ma manière xamoon naa ni réaction bi noonu lay demee ndax dama mës a dégg Serigne Cheikh wax benn wax ni Tiwaawoon bu ñu amee at di ràpp naa leen bàyyi ñuy ràbb ñuy ràbb at bu ma ñëwee benn bëccëgu gàmmu yépp yàqu waxin la waaye tabaarakallaahu genre cynisme boobu mu tudd daf lay xaw a nuru sax comme ni mu ko waxee ni yàlla ku ñàkk kerse la suñ Cheikh wax na leen ko ci waxtaan waaye itam baat yi mu jiital moo ci mat bàyyi xel mooy ko xam lépp man lépp bu la neexee nga ñàkk kersa waaw yaakaar waxoon na leen ci gàmmu gi nag ni yolamal bu bëggee yàq teengal baax na ca looloo tax mu tudd leen ni yàlla am na lu mu man waaye bu dee ci àdduna du ko nangoo man waa day bëgg ñu jàppale ko ci waaw baat boobu nag dafa mel ni ñun ñëpp nag tey dañ ko war a bañ ko yemale ci yàlla rek waaye ñi ñuy jëfanteel yépp ñu jël boobu teg ci sunu kanam dama am na lu nga xam ni ku bëgguñu defal la ko dangay jàpp jàppale la koy defal waxin la nag dafay laaj analyse dëgg mu mel ni nag ci biir loolu échange yiy am comme noonu mu ko waxee diggante yàlla ak nit ak sacrifice ya ca aju تدنا لندو عيسى بن مريم خينا لول نيو من واخ باسكو تي غيس غيس سين نيو كو نيو داج تي اكك بور نيوم عيسى بن مريم لا واي بودي تي فيرسيون القران يك نيو ني دو موم نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم waaye rek leçon bi mu ci tudd tam modi la Isa jëndeel lolu te mooy ku ko gëm deme aljanna mais fay laaj ñu xalaat ci est-ce que ku day noonu dana def sacrifice bu tollu noonu pour yow rek nga dem al aljanna kese kese mu jeex mooy wax ji bari na lool alquran tudd na ko mais aljanna mooy lan ndax ñu nit niñ ko dégg genre këru rêve la rek te Ibrahima al Khalil waxoon na yonent bi ca ba muy dem rañaan nga ni ko Parcelles Assainies la kenn ku ne yaay xam nag superficie ba nga fa soxla

waa safara yeey xuloo ku ne naan sa moroom wàcc ma yaa ngi may sonal yaa ngi may gaañ nee na espace bu xat ba ak malaaka yu bari yañ leen booleel ak ceen ya xam nga kooku bu bu bu bu ne wàcc ma walla mu ne la yaa ngi may xatal di nga ko man comprendre waaye nee na ki ñu indi nag ci taatu garab gi lalal ko ndes alaay ndeysaan jox ko yu sedd dalal ko attaaya te mënuñu fexe ba mu dégloonteeg morom bi ku ne di xëccoog sa morom kàddu waxin la waxin la dafa dellu ci alladina la yantiquuna illa bi shagab ok ni bu fekkoon ne alladina la yantiquuna illa bil xaq la coow du fa am nu mel ni nag bu ñaareel ba mooy bi mu tudd ci sëriñ beeg taalibe waaw ah. moom leen di seetlu te ni leen damay tukki te jël bagage am ba ñu defee ni tukki na mu jaar ca pot ba ñëw betti leen fekk leen ñuy yoote mu ñëw taxaw ci seen kanam ndax defoon ni buñ ko gisee seen fit day dem ñu ni tekki fi ñu toog rek mu seen mag kay magu taalibe ni ko waaw xana ki du diw mu ni ko mën sax de mu de ko lu la dal kañ nga fi def xaat mu ni ko ci lan mu ni ko dang ma xàmmeetul mu ni ko dama li jeppi c'est tellement important dama la jeppi effectivement parce que amna lu nga xamni ne na jaar neneen te du jaaree noonu xëy na xamuleen leen sax li di wax bi wax bi réponse la waaw mooy ñu ñu fi doon dal ci suñu kaw ba ñu bàyyee affaire gàmmu gi ca atam te am ñu bari di ñu soow waaw waaw li ñu def nangam nangam boobu la doon niirale ci waxtaan bi dañ ñu ni organiser leen gàmmu gi fekk piège la na ca des jarul dugg ci détail dama leen doon wax rek ni parce que booba la woon waxtaan bi bu ñetteel bi mooy boroom fas wa te géet waxoon ko te mu téye fas wa rek la mu ko war a defloo du ko ko defloo di ko jox muy lekk ak naan rek mu tëdd

Si fekkee ni nag bàyyiwuloo mu servir ko condition ah, ba dernière minute bëgg mu servir lu bokkul ak li fi bàyyi du ah. gis nga mu si ko ci luy tax nga ah. wa am na yuy am li tax mu deme noonu dangay xam ni am na lu nekk ci biir lu yàlla waxul waaw looloo tax rekk tudd gi mu tudd wàllu ibnul muqaffa mooy ba buur demee ba jaaxle ci ñaari ministre yi

bokk ñoog ñi naan xel kese la am ak ñi nga xam ne xam-xam kese la am am na ñoo xam ne ñaar yëpp lañuy boole donc ku ñuy àndal rek dinañ ànd ak yow waaye fa ñuy jële nag feneen la yooyu mooy daan faral di yu bare dafay yéeme dañu Cheikh a nga ko nettali yaakaar na keroog yéen a ngi toog ci jàppante Seydi Ahmed si ak suñ babaka pour wax la ni Maodo daj na lu ne ndax néeg ba mu luye woon ndeysaan Dan fa jamo yalla dan fa jangale ca ndar te bank ye ya ko yéenewul jàmm xëy rek bëggu ko créer problème tax ñuy gis borom geur ga ni ko génne ko sa keur mom mawdo ndeysan jigen je ñoo fekk ko fa rek beccëk ni ko da ngay genn mu di ko dafa beccëk do ma may bëgg naw timis ndax sutura baxna mu ne ko mënuma ko ah, léegi ngay génn Maodo woo Sëriñ Babacar woo Seyd Ahmed ñaa ah, kon ñu takk bokk li fi ne wuti fu ñu jëm ñu takk bagage muy ñaari ëmb ëmb bu mag ak ëmb bu ndaw Seyd Ahmed ñëw jël ëmb bu ndaw bi jox Sëriñ Babacar pour mu yenu rekk mu dóor ko mbéj ni ko may sa xale ba nga may jox ëmb bu ndaw ñu ni kirtim xeex Seydi Ahmad ak Sëriñ Babacar xaqiqa la lu ñuy nëbb newu fi kirtim xeex Maodo ñëw àtte leen ni waaw lu xew Sëriñ Babacar ni ko mu dem a jox ëmb bu ndaw mi dafa ni may xaleem góor gi ree Maodo daldi jël bu mag ba yéen sëñ Babacar sànn ak jëmm ja ndeysaan waaye rek ak jom ja ndeysaan waxin la waaw tax na ko xamul rek xamoo dama jot leetar ci suba ki ma ko bind sax kilifa la ci man xam naa it ki ko bindal lettre bi ak lañu wax soog a bind leetar bi <laughs> di ma ñaan naan ma demal seeti kilifa sàngam nga ziyaara ko ci koor gi <laughs> may yërëm ko ndax bu mu ko yërëmul woon rekk mu ñàkk kurus ci lim ma ko ñaan ak lim may jege jege billaahi ba tax na xàmmee baax na am na koo xam ni bu dee la mu donn dañ ko koy jàngal moomu ko waaye yàlla bu xasee ba commencé scénario am te pareewul da ngay tey lu ne dafa am lu mu ca jublu bu paree nag yépp jàppandi ndax defu ko pour yàq day bëgg nit ñi jàng la ca am solo mooy ña war a méngoo scénario ba xam ni day jeex loolu la jaarale ci kër yonent yépp ba yegg si njàng rekk la watlu alayhim naba ab naba abnay aadama bil xaq yooyu yëpp njàng la lu ko defee yu mel noonu ñu it njàng mi ñu jariñoo ko waaw ah, te bañ ko def fiiru passion waaw ak wax na leen ko ci waxtaan am na ku nga xam ni yiw rek la xam kon nag ku ànd ak moom day bëgg nga ànd ak moom ca yiw ga waaw ah. ah la ca des nag mooy baat bi mu tudd ci wàllu lislaam

ñetti làmp yépp benn vertu ci benn jaune ci benn rouge ci ok waaye ki ko def defal la ci couleur yi moo xam li mu ci jublu kooku ijtihaadu boppam la que bu deful ijtihaad boobu rek àdduna tut ndax bu ñetti yëpp tàkkandoo te am benn amu ci couleur problème am ndax ñoo nuroo couleur waaye fexe na ba bu ne mu tafal la boo xam ni boo tàkkee nit ña xam li ñu war a def lan la diine it noonu la deme noonu la yi ci des yëpp deme waaw mu mel ni dinga ci am kilifa sax moom ngay déglu mooy seen lépp waaye dina wax dara walla mu jël benn position nga ñëw dindi ko duni danga xam lu mu xamul walla danga gis lu mu gisul déedéet yàlla ay defee noonu loolu fa fahamnaha Suleymaan <laughs> ok te ba mu weranteeg Daawud كيف فهمناها سليمان وعين وكلا اتينا حكما داود جل وعلما سليمان جل آه. اوكي بوكا ديفيرك يو ياي بن بن رك لا يو ني ورا باي خيل bi ci des moy yaakaar ni ci foofa la waxe lu lu leral yi nit ñi werante te mu bi muy tuddu yi ñu sos ci kër gi de way iri parce que waxtaan ci jamono li wara a jariñ nit ñi rek mom ngay defar jox ko nit ñi waaye li mu wax ni dama amul luddul kenn te mooy sëriñ Babacar Si mu ni te la ko gën a yitteel gannaawam mu wax ma ko yaakaar naa ba mu koy wax booba dara yëngoogul mu ni te la ma ca man ma def ko ok bii rekk nag moo am solo gis nga yi des yëpp dafay tardel nit ñi ngeen di ma baal bu ma leen di wax yenn yi bu ko kenn di jël féetale ko fenn ba mel ni da nga mi njàng njàngu xaqiqa foog muy demee noonu loolu rek moo ca am solo waaw waaye baat boobu mu wax ni def la ko gënoon yitteel gannaawam mu wax ma ko la ma ca man ma def ko boobu rek am solo yéen nit ñay toppatoog nag di ko liñ di ca werante intéressé wu ko li ko intéressé mooy kii mu amul lu dul moom li ko yitteel mu wax ko ko def ca doomam ñun itam nañu boobu yitteel rek nañu xam lu Seyyid Cheikh bëgg ñun ñëpp ñu def ci sunu jom yi ci des def di tardeel waaw bu ko defee rek tabarakallahu fi mithli hada fal yetanafasil mutanafisun wax na leen ko parce que ñi bëgg lu ñu am ba mu jaral leen ñuy bàyyi jigéen ba mu ëmb ndax foofu jigéen dafa am doole ñu dem di ko dawloo pour mu gañe mu ne ndax gañe bi jar na loolu te bu gañe ba noppi ñu dindiwaat doom ba wax bu yéeme la bu jara xalaat bëgg a gañe rek tax loolu yëpp nga def ko bu paree nga dindiwaat dom ji ak ni dom toll mel ni boobu ñu nit leçon la ci ñun war ci bàyyi xel bu ko rek am na ñoo xam ni bu ñu daanoo rek ñépp daan waaw waaw ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين waxoon na ko am na ñu bëggoon lislaam daanu waaye dem nañu ba yëg ne bis bu lislaam daanoo ñoom ñëpp ci kambu gi lañ jëm moo tax boobu it ñu nit ñu delloo si ko waa réew mi jéem nañ ko ba tàyyi waaw ah. gas nañu ba tàyyi daa bëggoon ko ca ruq ba dugg ca biir te yëguñu ni buy dugg ca biir dara dootu fi des ndax li ma leen wax démb mooy dëgg am na koo xam ni moom ca boppam mooy ordre public waaw ah. ah. waaw ku ko yëngal rek yépp yëngu wallaay ba mu koy wax du tey علي ديسان وأن الرجال مهما كانوا تقدر شخصياتهم في الحوادث والأعمال وتقدر عن طريق الموقف وعن طريق السلوك إن اعتدلوا اعتدلت بهم كل حادثة وإن ثبتوا ثبت من أجلهم كل عمل أمنا نيو خمني نيو كونسيانس كولكتيف bu ñu yëngoo yépp yëngu waaye bu ñu dalee yëpp dal waaw te daana tabarakallahu ku mel noonu nag boo ko amee bu ko ñi ci des xamul it yow nga xam li nga am rek